jiite njabootuk maam Cheikh ibrahim Fall di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér bu ngeen gisee jotaay bi nag xam ne ndigal bàyyikoo na ca sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadou Mountakha egsi fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëmm ju tedd jiiri sëriñ di Fall tey wuutu fi maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi muridina ndigal loolu nag mooy bis bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou moo sant njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñu tuddal ko yàlla muy àllarba bii di ñëw ci kër këram daaru minam ci kër seex Mouhamadul Bachir ndigal loolu nag bi mu egsee ci sëriñ bi sëriñ bi woo njaboot gi woo bokk yi fédération maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi nii toog waa daayira Jësbul Murit lëkkale ñu mboolem sëti maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi nii toog waa daayira ñoom itam di ay tuddukatu yàlla te ñëpp di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi nii toog. Sering bi woo leen tey nag ngir am kàddu yu ci bis bi ngir murit yi ak mboolem kuy kuy dégg kàddu gi mën a jëfandikoo ndigal loolu kon kàddu gi dañ koy jox sëriñ daam ci ndigalal sëriñ bi mu yor kàddu am di Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu sëriñ baa ngi nuyu ñëpp di jiital si bi sangam bu baax ba di Cheikh Ahmadou Muntaxa di ñaan sama borom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mbooleem njabootug sëñ Tuubaa gi rek fu nu mën ne rek te di leen siyaare bu baax a baax naka noonu mi ngi nuyu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi muy njabootug boppam di leen siyaare te di leen ñaanal saa borom kàttanal leen ba ndigal yi ñu mën koy jekku saa su ne noonu ko sëriñ Mamoun waxee nag jëwriñ yii teew danoo teew si ndigalul sëriñ bi si ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi jox jot na ko mu bàyyi ko si Cheikh du Mountakha ngir bis bu màgg boobu nga xam ne moom la nuy waajal fee sa kër Cheikh Amadou Bassir gi si Darou Minam sëriñ bi waxoon ni dasee bëgg a sant yàlla sunu borom si turu yàlla njukkale ko maam Cheikh Ibrahima Fall muy bis bu màgg boo xam ne bii dafa aaje nu waajal ko ndax du lu ndaw looloon looloo doon mm, sababu sëriñ bi tànnoon si jëwriñ yi muy ñi nga xam ne ak njabootam lañ ñu ñu saytu si njabootuk Cheikh Fall gi kurel goo xam ne gii danañu waxtaan ci lépp lu jëm ci luy mën a bis boobee ba mu mel ko sëriñ bi bëggee njaboot googu nag ñoo teew nii ci kanamu sëriñ bi kon sëriñ bi mooy feddali ak di wax mboolem taalibe yi fu nu si a ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax mboolem jullit yi ak képp ku am yéene ñëw teew ci ñii nga xam ne ñoo fi kanamam sëriñ bi moo leen tan ngeen ñu taxawal ko ci lépp loo xam ne tax bis boobu mana a mel ko sëriñ bi bëggee te jubluwu si lenn nag lu dul sëriñ bi nga xam ne sangam bi nga xam ne moo koy liggéeylu mu am si mbégte la mu si yaakaar ak la mu si séntu lépp mu am ko ndax bu ko amee rek noonu leen si bëgg lépp daanu ko am kon nag sëriñ baa nga leen di ñaanal di liggéey bi ngeen tàbbi si ak bisimilahi rahmaani rahim te li ngeen li ngeen si jëf rek yàlla dëppoo ak li nga xam ne moo gënal sëriñ bi kon kàddu gaa ngi noonu euh, sëñ bi nee na ngeen dem wéyal liggéey boobu ni nga xam ne noonu la leen ko digalee Euh, ngeen doxe ko noonu ndax li mu si bëgg lépp boo ko amee rek mooy sëriñ bi am mbégte si liggéey bi li mu si bëgg lépp mu am ko kon na leen sama jàppale barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum guddi xaadimu rasuul un événement unique au monde. La quatrième édition. La puissance d'une voix rarissime. Au Théâtre National Daniel Sorano. C'est li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer